asalaamaaleykum askan bi maa ngi ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp def comme ni ma koy defee saasu na rek tey nag xam naa da ngeen laajaat fan laa nekk tey jéeg bi nag mu ngi mu ngi mu ngi yëmbal tey damaa seet si woon Pambay ndax Pambay moo fi def festival bu rëy festival boo xamante ne ni festival bu fecc la kaay fecc looloo taxoon tey ñu ñëwoon nag seet si ko léegi nag moom mu ngi ni taxaw kii mooy Pambay Pambay festival bi daa mel ne jaar na yoon de. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Escandinavia bi salaamaaleykum. moo monde entier ñu ngi leen di nuyu bu baax waaw commencé nañ festival Lamb Daj Danse tey lañ léegi lañ commencé nii mooy commencé ak Amadou Kandé mu nekk professeur moom nekk kuy jàngale après ñu ngi am yéele cuun si kanam tuuti après ñu am improvisation si mbedd bi waaye mbay aar la mbay aar <laughs> aar aar yes waaw la mbay aar mooy sama tur festival bi mu ngi tudd festival lamb daj danse uh-huh. lamb daj danse festival waaw waaw léegi festival bi kañ euh, kañ kañ nga ko commencé def wala yaa ngi koy doog a commencé def waaw bi mooy cinquième édition bi festival am na juróomi at waaw bi mooy cinquième édition bi waaw léegi yow lii ñaata fan lay am wala tey rek la yem yemul tey parce que deux jours yëmbal la yeneen deux jours centre culturel Blaise Senghor waaw waaw merci kon ñu ngi lay fekk si biir ñu ngi ñëw léegi bu soobee yàlla xam naa man sax tey ma damay fekk bokk ci danse ndax damaa damaa bëgg a mën a fecc waaw Aïcha kii nag mooy Assane Ndiaye <laughs> borom yëmbal xam nga ne bu ma ñëwee yëmbal te Assane Ndiaye bokk ci label man waruma gàddu dara damaa war a taxaw rek topp ci ginnaawam nag moo aye liñ naan yaa moomee vent Assane Ndiaye moo moomee vent dama ko doon ubbil nii rek daal di présenté sama xarit bi yi nga xamante ne nii macha allah dafa ki ñaan nangoo liggéey te man ñi nangoo liggéey rek laay àndal ndax man jigéen laa waaye ñii liggéey rek laay àndal ndax man dóorkatu waar laa Assane Ndiaye nag mu ngi nii tey nag bu soobee yàlla moom laay dénk micro bi Assane am sa loxo won ma sa loxo ayca doxalal ah waaw waaw ku la feesloo nag moo la yàppuloo te ku la jàmbaloo taxaar ku ne nag moo la màccloo say baaraam ah, kon nag mbay aar nag tey moo nu jàmbaloo sunu waaw kon dinañ màcc ba mu neex. waaw kon mi ngi noonu nag kon tey du yomb ndax mbay bu wootee ñëpp dañoo war a teew te ñu dañuy teew defar ba mu nooy te loolu mooy dëgg festival bi nag commencé na tey tey lan koy door jëm ak moom ba. ba dimanche kon gars ñu nag yéen du yomb ñu ngi ci biti jëm ci biir nii léegi kon ngeen déglu jéegu YouTube bi man jantalu YouTube ñëw naa ànd ak Mbaye Aar. let's go. One, two, one, two, one, two, three, four, five, six. Uh-huh. Uh-huh. Hey, watch yourself, yeah. Pas mal, ils sont pas mal depuis. Pas mal. Up bul wàcc bul wàcc xol yi sedd na te ñu ngi rafetlu sa liggéey di la ñaanal ca kaw ci kanam ci lu baax. wax dëgg yàlla lii dafa raar. aar la ñuy def nañ fexe mu jëm si kanam. incha allah incha allah fecc la ñuy def wala théâtre la ñuy def nañ fexe mu jëm si kanam. waaw mu am solo mu am solo. di leen sant leen teewaay billaay walaay bëgg si yéen. ñoo la gën a kontaan ci yow. di la wax bonne continuation. yow Mbaye fi nga teg sa tànk dama lay wax bu ko mos a teg. jeex ñoo ngi sa ginnaaw.

parce que lu ma def bitim réew la xam nga def naa ko àdduna yëpp xam nga te et puis senegal ñun suñu biir dañuy judd rek fecc mais nag foog nga xam aussi technique gu fecc. et c'est important. nga ñu ci bari parce que boo xool aussi fecc métier la bu njëkk ba plaisir la woon mais sama genre gi ñun man wane naa ne fecc métier la fecc moo ma def moo ma jox lépp lu ma am. parce que dama yàkkamtee fecc. ba xam ni mais dama ko teg ci temps. maanaam su may dem bay fecc dañ may fay ndax fecc moo tax ma am kër moo tax ma am oto moo tax may tukki moo tax ma am passeport fu ma neex dem. idée bi nag mu doon idée bu ma marqué bu ma frappé surtout fii ci banlieue bi ndax ñun fu ñu mënti dem ci laaj bi banlieue la ñuy représenté. géejawaay yëmbal parcelle fépp. booy mbay idée bi mu am nii làmb daj. xamu sax lu tur bi. làmb daj dafa doy waar. lu ñu war a gëstu bu baax. c'est vrai c'est waaw kuy mooy grand yellu ci ku nga xamul ne dégg nga ko. moom bu fekkul du dund. kon kii ku jox métier mi cër la lii métier la du lu ñuy fowee te wax dëgg yàlla man dafa am lu ma remarqué fii. ci fecc mi fecc mi dëgër na macha allah te góore na tey lii moo manqué ci aar bi formation bi la xale yi manqué te bu amee ku mel nii dañ leen a war a jàppale tegal di leen jege xale yi yéen laay waxal yéen ngi xam ne yéen a ngi fecc da leen jege genre bi ndax gis nga fii boo xoolee góor gi fecc sax da xam ne kii góor la waaye li gën a bon di xool góor muy fecc man la jigéen di fecc ñaaw na trop waaye man lii ma gis fii tey tax na maa ñeme fecc te dinaa fecc nag incha allah ndax dinaa yëlli mii kon dama ne ñu mel nii foog ñu jox leen leen moom ci métier mi ci métier mi ci la amee këram ci lay dundal njabootam mi ngi ciy dem fu ne partout dans le monde kon ñii métier mi daf leen soxla Sénégal daf leen a soxla dama bëgg xale yi ngeen jàpp ci ñii ñu amal leen njëriñ waaw kontaan ci ginnaaw yéen fi la bëgg na waaw ndax mbay nee na bëgg na ci yow maa ko gën a bëgg maa ko gën a bëgg jaajëf gars yi bonne continuation jaajëf jaajëf gars yi nag moom bu ko xamul it yaa ngi koy seen baa ngi koy dégg muy doom ci yelli ci yun african ndigal kii du fa silib daraa la fa bu dëgg dee dëgg rek ñuy liggéey liggéey ba am solo man ma naw leen wax dëgg yàlla ndax li ñu dem ku ñu teg na ci seen bët moom mën ta gis papaam yéen taxaw di wax te du ci sànni kàddu xalaatu ko sax foog tey ñu bàyyi ko micro bi mu wax mais mënoon nax tuuti ci moom boo gisee kii moom sama fierté la parce que ci ñuy ibbi euh, groupe bi ci la bokk mais saa yu ñu dem tournée international day fekk mu jàpp mais sama rêve man mooy ànd ak moom tournée yi di ñëw te yaa na ko a wax moom mu wax lépp ndax lépp ci loo xam ne ne non doo dem dañuy sant yàlla jul si bi tey xam nga dama kontaan dama fekk euh, ñaar ñoom te ne may dund ak ñoom muy théâtre kat yi di waa arko may dund ñoom fekk fii nag ki nga ne mooy sama base ndax euh, meññantal daa am solo si nit mooy racine te kii tey kii man mooy sama gétt su ma defaroo ci fecc ba théâtre kat yi mën maa gis boole ma seen bopp ñi ma wooyee comédienne bala actrice de cinéma c'est grâce à lui dafa am lu mu jëmbat si ñun muy fulla fayda joom ak gëm suñu bopp te ñun si loolu la ñuy dox suñu slogan loolu la fulla fayda ngor gëm suñu bopp dara fokk suñu bët yow da lay ñaanal Demba Yacine Sagor Baba Yacine Sagor Alpha Michik Balakos fecc lay def pur et dur day fecc démb day fecc tay te boo ko boole mu jox la suba ñun duñ tay di wax ci yow barke maam Seera Fall wéru ma mais ba ma déggee mooy joxe wërsëg bi tay dama bàyyi lépp ñëw ndax dama ko namoon te nag di wax gars yi xaar leen ñu Jami Gueye de retour chez son père à African Ndigal ñu rukk nag bagage yu bees tax ñu nag yéen xeex bu dul jeex la Jami Gueye taxaw foofa buruju foofa dana baraja ba baraja ba buruju buruju buruju ba lépp nag ak mbay aar xalaat bu rafet bi mu def lii jeune talent ku ci nekk war na cee roy xam ne lii solo liggéey la métier la ku ci dugg ku ne nga xam li ngay def ak fa nga jëm waaw xam fa nga jëm ak la ngay def am solo ci doomu aadama lool moo tax ñii man de naw naa leen waa RTV it naw na leen ñun ak yéen li des si ngoon ba ca kanam. nan bonjour comment tu t'appelles. Euh, Frédérica. Frédérica moi je m'appelle Assane Ndiaye. salaamaaleykum. waaw ah, waaw bienvenue sur RTV. waaw merci jërëjëf. ci parle wolof. waaw tuuti rek nang-nang. tuuti tuuti nang nank waaw tey dañ lay nuyu di la dalal fii ci RTV. waaw di la wax dalal ak jàmm. di la wax yow lan moo la dugal ci aar ci fecc. Euh, waaw man la euh, feccikat depuis enfance depuis 5 ans, euh, dans des dans ma fête sabbat, mais tout et tout de 2017, je suis au Sénégal. Euh, suis euh, Mbaye le créateur du festival. Et aujourd'hui, on est mariés, ça me dit Mais avant, avant qu'il est, il est mon mari, euh, mu ngi professeur sa son esprit et son passion avant que avant le mariage et le festival pour nous c'est aussi avant le mariage on rêvait beaucoup de choses pour le sabbat et pour le Sénégal Inshallah, inshallah. Ah, mooy jabaru mbay aar te laata mbay aar di ko takk maître am la woon mu koy jàngal fecc mu gis si njëriñ loo xamante ni wax dëgg yàlla daal moom ah mënul bàyyi mbay aar te xalaat bi rafet na kontaan na loolu tamit ci li mu ñëwee Sénégal fii di ko fi wone waaw kon kii amel nañ njukkal mbay aar mbay it amel na ko njukkal Sénégal it amel ko njukkal ndax li wax dëgg yàlla sagu Sénégal la nit ku weex ñëw ci bind ñu ñuul ba gis ci njariñ muy maanaam sunu culture ñëw di ko jëfee loolu rafet na neex na macha allah. ton dernier mot. mon dernier mot. Euh, jërëjëf Sénégal jërëjëf Sénégal pour euh, euh, sunu aar l'esprit. beaucoup. bëgg na leen. bëgg na leen de dégg ngeen ko kon ngeen bëgg leen ko Bigas ca kaw ca kanam. ak Mbaye Aar ak RTV ca kaw ca kanam ci lu baax. bonne continuation. jaajëf. et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et... 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. depuis daaw moom dama ko ne yow loo xewle fu ma munti nekk naa dagg bi ñëw si barki yonent bi parce que moom moo ma ko jaral moom moo ma jaral lool ndax yëfam sama yëf la ndax maa ko doon naan mbay del osé di organiser nit ñi muñ la xam parce que da ngay nekk si gox kenn du la teg ngay nit mais si wàllu si lu ngay liggéey boo ko fulalee boo ko faydalee nga organiser sa koñ nit ñi dañoo jox cër parce que doomu aadama si looy yëngu lu ne rek ngay mun a wone pour doomu aadama yi jox la cër ndax gox bu nga dëkk nag macha allah lii dina jëm ci kanam nag si barki yonent dina jëm ci kanam bi mooy deuxième dinañ dem ay dixième ba suñuy sët sëtaat sët sëtaat di ko eggale ci barki yonent waaw man sama wàllu côté sama wàllu côté lu ma mooy lu muy def man moom laay def mooy sensibiliser doomu aadama yi sama métier wala leen ne sama métier ñenn ñi dañ ko ñàkkal fayda mais métier bi day defar doomu aadama mun nañ ci woo doomu aadama doomu aadama mun nga ci baax te da nga ciy baax nga tekk teral say waajur parce que boo xoolee euh, kaddu bu ñaaw bu ne ñu ngi koy wax artistes naam mais boo ci nekkee boo duggee ci ci aar bi da ciy génnaat parce que da nga ciy fekk ay doomu aadama yoo xamante ne nekkuñu ci lool noonu parce que man loolu laa gën a loolu laa gën a gëm mooy woo ay doomu aadama yoo xamante ne doonuñu artiste doonuñu dara ma def si ñoom dara def ci ñoom tamit. waaw ma def si ñoom diine parce que aar bi mun na yóbbu doomu aadama fu ne. même pas 15 jours laa jógee umra te fecc moo ma yóbbu xaalisu fecc laa daggee sam biee ma dem mooy deux fois mbay bu ma koy wax tamit foofu la ma ko waxaatee fekk maa ngi umra ma ne ko faal naa la fa fasaaleel te maa ngi jógee Kaaba gi su ma ñëwee naa bokk si affaire bi si kàttanu yàlla daa ñëw daa daa ñëw sànq waa ambassade woo mu dem ñëwaat fekkaat si classe fecc ko mën de ah. <laughs> non fecc mooy mun lépp parce sama àdduna yëpp aar la aar rek laa xam aw ma beneen métier bu ma jugee seeraas ba dugg si aar bi amaatuma beneen métier te ay doomu aadama yu ma nekkoloon seeraas dugal naa leen ci aar bi te ñoom wax dëgg fa yàlla nii nii bu leen fekkoon tamit fi dañuy ñëw ñoom ñu ngi Angleterre mais bu leen fi fekkoon tamit dañuy ñëw aar bi rek a mun loolu waaw man lu ma ko ci yokk mooy na gën a jàpp commencement day métti loolu laa ko commencement day métti mais ginal jàpp mais bul politique parce que góobu ma politique gouvernement laay liggéeyal mais du ma booy dem si politicien demal sa intérêt mooy bu ñëwee da ngay dem bu ñëwul da ngay dem mais yow jëlal sa doole yow def ba pare keneen bu ñëwee fekk la si bu si bu ñëwul nga xamante ne yow da ngay dem mais jàppal métti na jàppal. Mm. te incha allah léegi jeex. dina dooni nag ay audition audition audition audition. Mm. mais góorgóorlu. lenn rek laa lay dolli. Mm. mooy fonkal say waajur. fonk say nitu démb. bul fàtte say nitu démb. jàppal say nitu démb. say nitu tey say àndandoo. ginal jàpp leen te am yërmande ci ñoom. nga yërëm sa yaay. yërëm say mag. yërëm say rakk yërëm say jarbaal. fonkal sa yaay boo fonkee sa yaay teral sa yaay barki seen naama dara du la foo bëgg da nga fay yegg. ci barki Mouhamed. man loolu rek laa gëm. sëñ Fall. incha